so bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. maa ngi tudd Sadio sant Ndiaye. Ndiaye Diatta Ndiaye. ah tur bu neex la. Papis dama bëgg ñu waxtaan tuuti. Papis ana lan nga def Khadija. dëgguma ma ne lan nga def Khadija ba bu gisee góor waxuma la xool mais day daw. ba moom nee naa la xol bi dara nekku si man maa ko jur xam naa ko bu baax xëy na ma mënumaa seede ci moom waaye xam naa ne loo teg dara lu metti te man lu ma ko ñaan dina ma ko may. dinaa waxtaan ak moom mu wax ma dëggantaan moom lan moo tax mu soxla ci yàlla tey moom même bu dee jooyaat sax dinaa ko force mu wax Naaraa dafa war a wax lan moo tax mu soxla ci yàlla. tey xam nga ne man mënu ma mere Mara ma ko bàyyi waaye Mara jour day def loo xam ne daf may énervé di jël beneen sama moroomu jigéen di ko teg sama kaw. tey nag dama bëgg nga dëgër rek takk sa fit dëgër quoi jéem maa wax nag lan moo xew quoi. parce que instant bi moom commencé naa la ñeme nag ndànk ndànk quoi. eh yow da ngaa réew de si da ngaa réew laa Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble.